xawma euh, ce sont tes euh, tes tes, tes qualités de, de de rédacteur ou pas mais le récit il est poignant. Mhm. Euh, boo liiree livre bi di nga am yërmande ak empathie ci ki nga xam ne moom mooy moom mooy Adji Raby et c'est c'est le comportement et la façon de parler mën nga trouver ne que c'est normal pour ce qu'elle a ce qu'elle aurait subi mais pourquoi mu am contraste entre li mu waxee ci livre bi ni muy mën a toucher nit ñi ak son comportement son la Adji Sarr qui parle dans le livre n'a rien à voir avec celle qu'on a médiatisée avec celle qu'on nous a qu'on même le jour du procès <laughs> je me dis euh, lii nii yëpp Euh, waxu ko te waxew ko noonu le jour du procès et bon je suis désolé ah Adji euh, vraiment euh, je suis une femme mais mais mais mais mais mais là je reprends mon rôle de journaliste le jour du procès ni mu waxee elle a parlé comme une femme mûre comme une femme qui semblait assumer li mu doon def alors que dans le récit peut-être que yow yaa ko bindee noonu hmm. c'est une victime non non c'est une fille fragile en réalité boo xoolee boo xoolee livre bi damay def benn précaution de rédaction en disant que ni aji waxee noonu laa indee ay waxam bëgguma ko woon changer dama bëggoon a génne authenticité ak innocence su propos bi parce que dafa am enregistrement sonore parce que c'est la véritable Adji Sarr à qui on a laissé le temps de s'exprimer Adji Sarr kenn bàyyi ko mu wax gisuma fenn fa nga xamee ni woo nañ fa Adji Sarr mu toog fa plateau bu mel ni comme bi ma jox ni mu expliqué wu tranquillement en toute sérénité si on elle n'a pas euh, voulu moom ko encadré ils n'ont pas voulu donc kon ak lu mën di xew mooy amul occasion amul occasion c'est pas faute d'avoir d'avoir essayé et si dama la bëgg wax ne la amawul woon toog wax en tout sérénité déverser li nekk ci moom nit ñi déglu ko dama la wax fii léegi ne la procès bi dossier bu mel ni man jàpp procès boobu interrogatoire d'audience ba nga xamee ni que euh, une histoire comme ça interrogatoire du man du ma juger liggéeyu magistrat yi doon contrer audience bi mais j'étais resté sur ma dañ ko bâclé da nga jàpp na. non enfin en jàpp naa ni que buñ ko gënoon a déglu buñ ko gënoon a déglu xëy na mën na am dégg leneen parce que. aussi da nga wax da liir lire livre bi am ci lu muy def ci yow am na ña nga ay magistrat lañ dañu lire livre bi am lu mu def ci ñoom man am na ña nga xam dañ ma woo ni ma ah dëgg dëgg de li ma gis ci livre bi ñàkkul bu fekkoon lu mel nii waxee nañ ko nii wala xamee wuñ ko nii xëy na mbir mi mënoo demee. mais à qui la faute. mais elle elle hmm. temps de parole. Euh, dans le livre, on voit une fille traumatisée euh, qui a peur, qui regrette, euh, qui est malheureuse. loolu la ñu gis ci ci livre bi une fille qui qui qui a subi mais dans euh, ci Adji Sarr bi ñu gis tribunal c'est une jeune dame qui assume qui s'assume euh, qui a parlé de manière salace. Euh, parce que dafa ñëwoon et par heurtant même parfois l'opinion. Non, non, non, je vais t'expliquer mën naa comprendre loolu défendre ma Adji Sarr franchement mais aussi. Adji Sarr nekk nag nga xamee ne dégg na lu ne wax lañ ko lu ne elle était eh, dafa yàgg wax dafa soxla décanté Ousmane Sonko pour découdre avec moom devant tous les Sénégalais xam nga yàgg nañu ko dégg mu koy wax xëy na mën na am déception jour procès son ko ñëwul xëy na Ousmane Sonko ñëwoon xëy na moom li mu bëggoon defanteeg moom ñëpp dégg ko wala mu wane ak pànkam wala stratégie xam nga aussi ko dem tribunal danga nga am ay avocat nu lay préparer xaw ma nu koy avocat préparé xaw ma lu ñu ko wax mais dama la bëgg wax ni la daal man Adji Sarr dama ko jëkk a gis bi affaire bi xewee je crois que mas nañ ci waxtaan man la mas naa dajeeg moom ma toogoon waxtaan ak moom lu yàgg bokk nga ci ñi nga xam ne bi ma laajee bi ma laajee ni ma noo gisee fa man la xale bi ma gis de bu ñu ko dégloo mbir dina feeñ elle mérite d'être wax mas naa la ko wax bind naa ko sax day ci sama journal mais justement on n'a jamais écouté cette fille musuñu ko may occasion mu wax xëy na conditions yi maye mayewu ko euh, pression bi am na tension bi am na mais nañu ko waroon na uufe dëfal ko pour waxtaan na parce que Adji Sarr ba coow lu mel nii mu ni dafa am traumatisme am réew lu wala di dal ci sa kaw ñi ku ne naan yaay fitna yaa yee fitna ku ne naan ay nit dee na ndax yow ku ne naan yaa def lii yaa def lii da ngay fen da ngay ceci da ngay cela c'est lourd pour doomu adama c'est lourd pour une jeune jeune jeune fille de femme de son âge mais lu ci gën a garaaw mooy mu kenn mësut a xalaat yóbbu ko ci psychologue mu waxtaan ak moom. mësul jàkkaarloog psychologue on l'a abandonné à son propre sort. Adji Sarr toll na fi ay jamono yóbbu tol tolaan ba ay nit di ko for di ko fat loolu nit ñi Sénégal war nañu ko xam Adji Sarr dem na fa ba xaru. bind naa ko ci livre. elle a sauté du a cherché à se les veines. moi j'ai les de ça fii IHO Wakam bii lañ ko indi woon pour faj ko mais sénégalais yi dañu umpale woon loolu parce que may ñu ko fenn elle a été victime d'une pression à la limite gis nga li ko dal daloon nañ ñu bari tey nekkatuñ Sénégal wala dee woon nañu mais kenn mësu ko may occasion mu wax donc cette fille la c'est une pauvre victime doublement victime mais mais mais Madiambal Madiambal mhm. elle a fait quelques entretiens Euh, est-ce que la faute c'est pas est-ce que ñi ko yor ñu ko woon bàyyi mu génne son naturel parce que dañ ko jël robotiser ko euh, def ko un un de mode def ko un objet un objet de mode euh, wax loo ko niveau boo xam ne xëy na moom nekkul foofu et peut-être que loolu moo tax opinion bi ñu bari parce que dañ doon wax naan pour une fii qui a subi tout ce qu'elle dit avoir subi euh, comment elle s'exprime comment elle parle après ñeneen ñi dañ doon am doute est-ce que du Euh, toute cette préparation bi ñu def ci moom moo tax gisuñu l'authenticité de la de la de la de la Adji Sarr dama lay wax un grand journaliste le premier jour bi affaire bi éclaté Adji Sarr génn ci plateau télévision yi le premier jour mooy ba mu tolee fulaaram bu ñuul boobu wax c'était l'Adji Sarr la Adji Sarr innocente ouais. c'était la Adji Sarr naturelle c'était la Adji Sarr qui venait d'être traumatisée xam nga lu ma wax xale bi nañ ko déglu xale bi li muy wax lu jot a déglu la neewul la muy wax kële def na ko wala defu ko du moom mooy àtte mais dama la bëgg a wax ne rek na ngay mel tey ak na ngay mel suba humeur yi mën na wute te surtout bu fekkee dañ la préparer conditionné la xaw ma yan condition la doon waxee ak ku def pro euh, encadrement ci moom ba tax mu wane beneen Adji Sarr bu bokkul ak bi nga xam ne mooy Adji bu naturel mais li wér te wóor moo di livre bi nga xamee ne liir nga ko sa moroom liir ko dama ciy wax ay faits yu précis mu wax dundam ba mu juddoo ba nëga ni ak nu mu dundee événement ak jaar-jaaram joxe ay dat joxe ay firnde ya nga xamee ne que ku ko dégg di nga mën ni kat lii kat xel mën na koo nangu xam nga ñun ñëpp ay mag lañu ñun ñëpp ànd nañu suñu xel. wax bu yenu maanaa ku ko dégg xam ko wax bu dul dëgg ku ko dégg aussi mën nga koo njort mais yow ci sa wàllu ci sa wàllu bopp soo waxale sa aqulahi taala li keneen xalaat ak li keneen yëg livre bi nga liiree aji sa am na lu mu def ci yow lu wuuteeg la nga xamee ni que foogoon nga ko wala njortoon nga ko ci dossier bi pour man c'est ça le succès du livre et ma satisfaction parce que jàpp naa ni que kët euh, am na nga xam ne xëy na du waxuwul dama ko ne est-ce que bu sa dooma ngeen ko seetaane nii parce que aussi ku nekk da am yëg-yëg ci mbir bi yi dañ ko seetaan dañ ko seetaan te ñi ko gën a seetaan mooy jigéen ñi ñoo ko gën a seetaan ñi nga xam ne dañu war a taxaw fi pour défendre ak ak yelleefu jigéen dañu ñoom ñëpp dañoo waaf am na ñi nga xam ne ñi ko mën a tudd c'est ça la vérité xam nga wax ji aussi buñ ko buñ ko buñ ko nës nësal. oui elle le dit elle est hmm? allée voir la hmm? euh, la de la. de la c'était la pestiférée personne ne veut se voir. il a de réaction. man gis naa ñu nga xamee ni dañoo bâtir seen histoire wala seen carrière ci défendre ay droits jigéen mais ba Adji Sarr ba ñu waxee waxu Adji Sarr dañ yee duggee dañ may saag wala bëggee dañ may xas wala bu ci duggee dañu may wax lu waxuwul loolu la réalité loolu moo ci am. donc kon ñi nga xamee ne ñoo waroon am responsabilité porter combat bi parce que tey dama gis par exemple dama koy wax tey dama am benn journaliste bu ma doon waxal benn journaliste euh, de gauche bu nekk France ne ko li ma jaaxal moo di dama gis ay responsable politique français ñuy attaqué di jàppaan Ousmane Sonko di attaqué Adji Sarr man lu ci xew ak lu ci amul ñoom ñoo fi porté woon combat MeToo. Mm-hmm. droit de la femme. Mm-hmm. jéemuñoo xam ba xam. dénonce ton port. dénonce ton port jéemuñoo xam ba xam li ñuy wax am naa am ñu protéger ni pour le droit de la personne. ils se brisé beaucoup de carrières. alors mais ñu dikk fii tey kenn taxaw nii lii xew na lii xew na te Adji Sarr la ma wax premier jour ba tey musta changé kenn du ma ni Adji Sarr na bu amee ku changé Ousmane ko moo changé version moo fi jëkk journaliste nga génne na ay archives ci livre bi. moo jëkk a wax ni Moustapha xamul fuy Sweet Beauté faa dem ba waat ko ci kaamil ci waa këram taxaw ñi sénégalais yi dama doon faj sama ndigg ñëpp xam ne loolu amut te bu doon faj digg sa am na fa leen fu ko mën a faje ak leneen ak leneen wax ci la nga xam ne sax waxu wut mais Sénégal yi mosuñu nangoo gis yooyu nga xam ne Ousmane ko def na ko waaye bu ñu gisee ni que dañ ni Adji Sarr mooy fenkat bi lan moo tax yow nga mën a gëm ki nga xamee ni moom la mu waxoon jógu ci nga bëgg ni ko ki nga xam ne nag lu mu wax tey bu subaa wax leneen nga bëgg a gëm kooka foofu mooy far parloo bi. mais mais mais parce que aussi gis nga Maimouna fii dafa am la nga xam ne daf fi am dans notre moo di baal ma masochisme euh, daf fi am ba nga xam ne que kilifteefu góor wala góor baatam kowee ci baatu jigéen daf fi yomb ci ça la vérité il foog aussi ñu nangu ko. suñu société boo bind culture la wala xëy na yàgg nañ ci loolu mais on a parfois une société très misogyne mais justement parce que loolu moo tax ba nga xamee ni que jàpp nañu ay sar mënta wax dama lay jox benn exemple rek exemple ba nga xam bu tuuti man gis naa ña nga xam ne dañuy défendre ay ay féministes la ñu nekk droit de droit de la femme di ko défendre jour bi histoire Adji Sarr amee ak Ousmane Sonko une semaine après da nga art télévision nga yor mën nga rechercher des images les femmes de Pastef dem seeti Ousmane Sonko seen kër ñoom ñëpp dañoo muuru imposer seen bopp muuraay toog ci Ousmane Sonko toog ci fa tey ñaan jigéen ju baax ni dafa nii la war a mel jigéen ju baax dafa war a am diine dafa war a am lii est que loolu fi indi diine voilà la responsabilité de la société donc moo tax su fekkee tey jàpp nañ ni que Adji may nañ ko bunt bu mu mën a waxee bu ñu ko joxe mais le procès euh, elle avait un un procès elle avait des juges elle avait l'opinion nationale internationale et puis le le récit il est bouleversant il est poignant mais pourquoi donc. mais elle le, pouvait pas dans le, un procès le, non elle non mais mais, non, mais, mais un mais, procès ba nga xam non un procès ba nga xamee ne que le procès n'était même pas contradictoire Oui, mais elle aurait non, pu non, se replonger. Aurait... Ouais, mais, non, mais, elle aurait pu se replonger ouais, dans ce récit-là. Mais dans ce récit-là, waaw mais xam nga aussi Maïmouna journaliste nga yow booy commencé interview ma la jox rek booy ma interview da ngay commencé ci question yenn yi di yéeg di yéeg di yéeg ba euh, la la ñor nga toj yax bi xam nga inter noonu ngay defee interview donc sa fil conducteur interview noonu la est-ce que Adji Sarr jëm nañoo xam nu mu fu mu jógee fu mu bokk ak fu mu jaar ak nu mu màggee. ba agsi fi mu agsi ak lu ko yóbbu ci liggéey boobu ak nu mu fa nekkee woon xam nga loolu laaj ñu ko ci procès dama la wax ni la Adji Sarr interrogatoire d'audience matul quatre dix minutes te quatre du dix minutes procureur day poser question ma avocat euh, poser question président poser question et cetera ñu interrompre ko poser question kii suspension d'audience am mu am joltu joltu coxasu xam nga l'histoire de Adji dafa nekk un violent réquisitoire contre notre société mhm. ci biir récit bi da ngay gis les tares de notre société Absolument. la pauvreté la mhm. précarité euh, les jeunes filles comment issues de certaines familles comment elles sont laissées euh, à elles-mêmes mhm. euh, mbir yu bëree bëri ngay gis en fait en Adji Sarr mënoon nañu def le procès de la société sénégalaise mais lan nan nga expliquer euh, le fait que moom ce récit poignant la où elle retrace les faits, où elle parle de tout ce qui s'est passé, de Ndeye Khadi, euh, de, sa, de, sa, de, sa, de, sa, de, ses, de certaines de ses parents, de tout ce qui s'est passé au salon, et que juge Bugnot, à la fin de la fin, il disqualifie les faits de viol, il disqualifie les faits de, de, de, de de mort. Lan euh. mooy euh, gab bi. non la juge bi sukkandiku pour rendre verdict am man duma ko mën xam. parce que xëy na juge bi intime conviction loolu la ko indil euh, mais encore une fois wax naa la ne la que waxtaan nag ay magistrats ya nga xam ne ni que jàpp nañ ni kenn ci ñoo wax euh, dina partager yow euh, le message jàpp naa ne que lu li nekk ci livre bi hmm, bu fekkoon feeñoon na ci àtte bi la disqualification en euh, euh, corruption de jeunesse. ku ku nekkoon ci ci ah, dossier bi. non non non non non enfin non xam nga du ma wax ku nekkoon dossier parce que bu ma indil coow. <laughs> dégg nga ah coow. dama leen di magistrat la wax rek yamal jàppal ni magistrat. Hmm? waaw ah jàppal ni magistrat donc dama lay wax rek mbir bi tey jàppoon naa ne bu ñu jam bu ñu sumbaatoon projet bi dina demee neneen. parce que da ngeen di fàtte leen na Adji Sarr bi bi ñu. bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu écarté la l'inflation de elle a craqué elle a pleuré elle a dit que on m'a pas bien jugé xam nga lan la wax elle était déçue de son jugement parce que elle est intimement convaincue que li muy wax dëgg la te moom dolli ci lenn hmm? ni la hmm? Adji Sarr bi nga xamee ni tey aji Saarum tey mii bu daxawaatoon procès dina taxawal boppam leneen te di nga gis ñeneen ña nga xam ne ñu dul aji saar ña nga xam ne tey fi mu toll taxaw nañu la ñu ñemewul woon mooy ñëw témoigner wala ñëw wax pare nañu pour def ko.